professeur Fatou Sow Sarr maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yow euh, socio anthropologue nga yow yaay itam directrice euh, institut du genre et de la famille am nañu mbégte lool dalal la ci euh, plateau matinal bi tey. alors professeur sénégalais yu bëri dañu choqué ci kàddu yi nga xam ni déggee nañu ko ci Moustapha Cissé surtout li nga xam ni dafa jëm ci première dame Marième Faye Sall di soxna njiitu réew mi. alors yow ci Twitter ñu gis la nga def benn précision wax ne kàddu yi mu wax te ñu bari déggee ko neneen tekkiwul la ñu ko foog ndax mun nga ñu leeralal un peu foofu. waaw xam nga wolof dafa dafa xóot. Euh, wax ji nga xam ne ñu bari léegi bàyyi fàtte nañ nuñ koy waxee euh, région bu nekk aussi ak ni ngay waxee mm-hmm. euh, man wax ji affaire waxante yu ñaaw yooyu loolu tax man taxuma jóg ndaxte yàgg na fi boobu ba léegi bi nguur gi commencé ba léegi lii lañ fi dëkkee bu fekkee dañu waxal dëkk mais le fait que ñu jëmale si jigéen Euh, loolu laa naawluwul d'autant plus que sax euh, wax ji euh, niñ ko niñ ko déggee loolu mooy yàq deru jigéen. Mhm. parce que liñ li wax ji tekki moo di si booru kat la fii da ngay topp di si booru diw. mais xam nga wolof yenn saa yi dafa am mot di ay waxam yoo xam ni soo ko déggu rek yenn saa yi dafay day fët saq say nopp. Mhm. ndaxte bu ñu fàtte ni ñun ay ceddo lañu. Mhm. islam bi moo fi ñëw tàggat ñu ba soppi ñu. ni nit dafay yiw nit dafay am kersa nit dafay am lii parce que bu njëkk ba ooy wax da ngay xat ki rek wax ni mu la neexee mm. léegi nag li si amoon importance moo di que ñu ko wax ni leeral liñ doon wax parce que euh, yàq deru nit euh, surtout jigéen baaxul euh, parce que man bi ma ku ma xam xam ni ci loolu laay yëngatu parce que dama koy assumer ak koo ci doon dinaa défendre jigéen ñoo xam ne sax xëy na bëgguñu ma mais sama principe la moo tax dama koy def Euh, du c'est pas la première fois Aminata Tall bi mu fi jotee ak euh, bëgg a jël Sénat ak Pape Diop dama mobiliser jigéen ñëpp faf ñu dem jàppale ko ah euh, yaayu ci Barthélémy Dias bi mos nañ fi ñëw bi papaam nekkee am jafe-jafe ak police ñu dem bëgg ko fitnaal foofu dama jël sama lim bind dénoncer affaire boobu Baara Gueye bu PDS xawma leen mosuma ko gis sax de mais bi ñu ko bëggee jàpp ba pare wëlbatu ko bëgg dañuy jàpp euh, jabaram mais dama jóg aussi bind wax li ma ci xalaat euh, kii tamit en tant que euh, première dame institution la parce que suñu delloo ci suñu aada li may wax sartu Karakankuga tangu Soundiata Keïta nga xam ne treizième siècle la woon dafa indi ñaari article wax ni bu ñuy offensé suñu ay ay ay suñu ay jigéen suñu yaay dafa jox cër yaay lu bare ci biir constitution boobu jigéen daf ko gis comme yaay gis ko tamit ci wàllu nguur ni am na ci am na rôle ci liggéey bis li muy def mais dafa am rôle tamit ci nguur donc bu ñu delloo ci suñu aada ci suñu ay tradition jigéen dafa am cër parce que tubaab dafa ni boo yaree jigéen rek yar nga yar nga nation mooy peuple loolu moo tax ñu naan jigéen mooy la mère la nation hmm. donc waaye bu fekkee ni benn góor nga yar nit kenn rek nga yar mais yar jigéen moom da nga yar tout un peuple da nga yar toute une nation moo tax jigéen am solo ci loolu nekk jigéen nag Sénégal euh, parce que buñ lay bëggee toroxal ci sa yaay la ñuy jaar buñ la bëggee métti ci sa yaay la ñuy jaar mën nañu wax lu nekk sa papa du la métti mm-hmm. mais yaay moom dafa sacré mooy complexité wu Sénégal jigéen lu nekk la ñuy teg ci kaw dara mais kenn warul teg dara ci kaw sa kaw yaay kon léegi suñu bëggee suñu société bi avancé dañu war a génne yu bon yooyu yëpp euh, mën a wormaal nit nit ki mën ngeen bañ a juboo parce que ñii fii waxante yu bon ëllëg ñoo jógaat di àndaat mm. mais entre temps def nañ dégâts bu rëy loo xam ne ni ñu comprendre lu naka la demee loolu moo tax ñun tax ñu jóg parce que suñu rôle mooy loolu parce que ñun ñoo ko assumer li tax ñu créer institut de la famille du genre et de la famille mooy loolu mooy wax ci mbirum jigéen mais wax ci mbirum famille mm-hmm. te famille dafa am famille sénégalaise mu ngi yàqu-yàqu boo xam ne tey kenn moo fi des ki nga xam ne mooy keno bi mooy jigéen ci mooy yaay ñu demee ba image boobu ñu détruire ko nag bu boobaa société bi ñu xam ne bu yeboo ñu xam ne nërmeelu nañu fu mhm. justement mooy laaj bi ci topp euh, njeexital yan la mun a am bu ñu songee jigéen ci anam gu mel nii wala yàq ko njeexital gi ci njaboot gi dëgg-dëgg lan la mën a doon. mais mooy yàq société bi mooy yàq nation bi loolu la loolu la loolu la loolu la la teg bu ñu demee ba kenn benn jigéen kenn gëmatu ko parce que de façon am na sax leen lu may wax pour man suñuy suñuy ikoonu jigéen ñëpp ñu ngi leen di yàq su ma xoolee nar góor ñi nërmal nañ leen. su ma ko waxee ñu ne ma da nga contre jigéen góor ñu mel loolu boo seetee ku mel ne Aïda Ndiongue moom moo demoon ba symboliser la réussite économique de la femme ñu jël ko def ko li ñu koy def pare wëlbatu ko ni ñoom ñoo ko tooñ nga gis bi fi ma Mame Madior Boye nekk premier ministre mm-hmm. ah battu la Joola am ñu lu jigéen la loolu moo tax mi Touré nekk fii euh, premier ministre euh, kii ba toj canalisation ba ñu ni ñu ni jigéen la loolu moo tax tey ñu jël attaqué première dame donc dañu mos a dem bu fekkee jigéen ñi dañu noppi dañu mos a dem toog ba képp koo xam ne jigéen dem nga ba àgg si yenn niveau yoo xam ne euh, représentatif nga ñu yàq la or ñun dañu war a dañu war a sargal suñu suñu euh, jaboru chef d'état yëpp loolu waxuma ko woon ci principe mais c'est mm. très important parce que Sénégal bu amee stabilité dañ koy dañ koy euh, nañ nañ ñoo tax ñu am ko moo di moo di diine bi fi dugg ak ñi fi ñi fi jël ba wëlbatikuñu Euh, créer benn société boo xam ne nit ñi dañu war a mbokkoo ak booloo mais tamit nañ ko gërëmee suñu première dame yi parce que kat gis nañ ko réew ñu nekk ci à côté première dame yi la dugal seen jëkkër ba euh, réew ma coup d'état am fa ay jigéenu ko def mais ñun muy Colette Senghor euh, muy Elisabeth Diouf muy Viviane Were muy kii ñoom ñëpp war nañ bu fekkoon ne jàmmaluñu woon seen jëkkër wala ñu jàppale leen peut-être que nguur dina am neneen nu mu demee kon nañ xool ci loolu sacrifice yu jigéen ji def pour jàppale seen ay borom kër. mais jàppale seen borom kër mooy jàppale ay coow yu bëri am jox na ci tànki jàmm def ay médiation lool moom ñu ngi ko koy waxal. waaw loolu dama ne la ñoom ñeent ñëpp cest à ñi fi jaar ñëpp ñun dañ ci def benn étude. si lan quelle est la part bi jigéen am sur la stabilité du Sénégal. Hmm. c'est-à-dire les premières dames. loolu moo tax que mu nit ñi bëgg ko ko ñu bañ ko bëgg ay institution lañu. Hmm. donc buñ ko seete rek que naa ak diw wala àndumaa ak bu fi jógee tamit beneen ku fi ñëw tamit dañ la war dañ ko war a sàmmee noonu mhm. et j'espère que bu fi liy jógee xëy na ñoom daañu leeral li ñu doon bëgg wax gindi ba wax yu bon yu salte yi ñu ñu ñu génn si parce que li wul benn sénégalais mhm. si loo xam ni ñàkk dégg sa làkk la moo ko indi donc un problème de fond se pose. Mhm. alors professeur Fatou Sarr ay saaga yàgg nañ ko dégg wax nga ko sànq du fi guléet euh, te loolu dafa mel ni choqué wul woon kenn xëy na tax tey euh, mbiru Moustapha Cissé Lo gi yeneen yi ci euh, laxasu moo tax mu attirer attention yi loolu nag daf ñuy indi ci laaj saaga tey nan la toll ci biir askan wi dafa mel ni lu fi bokk wala lu fi sax yow en tant que socio anthropologue xëy na nga def ci ay jàngat yu gën a xóot lan nga ñu mën a indil comme tontu ci laaj boobu. saaga dafa yàgg am na bind ay thèse ak mémoire ci saaga donc dafa bokkoon ci suñu su suñu ni ñuy façon vivre l'islam bi moo ko fi dindi parce que islam bi moo ñox ñu nit dafay yiw nit dafay am kersa nit dafay am nangam mm. donc loolu loolu moo taxoon mais xëy na éducation boobu ñu amoon léegi mi ngi am jeexitit mi ngi dañ loolu moo tax ñun ñu yaakaar ni il faut ñu am une politique de la famille parce que xale bi ngay am ci biir famille bi mooy joxe citoyen biy nekk ci penc mm-hmm. kon fokk ñu dellu ci biir famille bi yar nañ ñi wax ñun ban modèle sénégalais lañ bëgg bu fekkee dañu bëgg nit ñoo xam ne lu leen neex mel lu leen neex wax tamit ñu xam ne loolu la bu dee dañu bëgg nag koo xam ne da nga da nga yiw danga danga da am teggin danga am yar da nga am nangam lool tamit dañ koy former bu boobaa li nga li ñu la former ci biir ci sa biir kër bu boobaa di nga rusi penc mi taxaw di ko wax hmm. loolu nag dafa ñu dellu si li ñuy wax depuis mille ñun ñu ngi koy wax il faut que ñu dellu si sur la famille ba loolu moo tax ñun ñu dem créer du genre et de la famille pour saytu jigéen ak saytu famille Euh, parce que bu fekkee ne defuñu ko mais loolu nguur moo ko mën a def ñun li ñu mën comme chef chef mhm. mooy di saytu di génne di wax ni société baa ngi mi ngi yàqu mi ngi def ni mi ngi def naa nangam kon léegi mais loolu politique publique la moo koy jël jël ko en charge global ba mën a nit ñi mën a yar seen njaboot nañ leen leen war nañ leen war a yar tey maintenant tamit que sénégal yi tamit bu ñuy fal tamit ñu xam ko ñuy fal parce que tamit bu ñu la dénkee nguur mais pour nga conduire sa la conduire ko ci yoon bu baax lii am tey xëy na dafa di un cran de plus rek mais comme je dis depuis ci si nguur gi commencé ba léegi ñu ngi koy dégg di ko gis xëy na tey ak dafa am tey na que nit ñi dégg na beneen déggin moo tax ñun loolu tax ñu jóg li ñu tax a jóg moo di li ñu bëgg a yàq jigéen te loolu je crois que alors ñu ñëw ci euh, coow li ñeel euh, symbole euh, colonialisme lu mel ni ay statue ak yeneen mbir yoo xam ne tuddee nañ ko ay tubaab bële ca ndar nag nga xam ni daanaka moo gën a diri coow muy statue Faidherbe bi kilifa gu mel ni Aminata Touré jiite conseil économique social et environnemental jàpp na ne moom Faidherbe dafa war a puus ñu teg ndate yàlla mu toog yow loolu naka nga ko jàngatee boobu soxti ak itam coow li lan moo ci sa position. waaw man damay féliciter madame Aminata Touré di ko di ko remercier ci li mu porté combat euh, ndax ñun depuis 2008 euh, ñëpp xam nañ Sénégal ñun ñu ngi wax ci affaire Talatay Nder ñu ngi wax ci Ndate Yàlla parce que Ndate Yàlla en réalité li mu def jàmbaar la boo xam ne mooy mooy la première résistante nationale du Sénégal à la colonisation moom mooy la première personne bi nga xam ne dafa xeex l'intégrité du territorial du territoire ndaxte dafa dem ni Faidherbe euh, Soumbédioune ak Lodo nangootuma nga yor ko parce que léegi ay si ay maamaw lañ ko jële woon mais nangootul sax euh, contrat de concession bi dañ leen ko lu ñu fay jox ñuy fay ay ay ay impôt at bu nekk mun leen d'accorduma si ba tere sax ñuy jàll dex gi di leen leen di leen yóbbul ay ravitaillement léegi c'est-à-dire ba attaqué ko mille huit cent cinquante cinq comme nag dañu amoon ay canon ak yooyu yëpp te boobu temps nit ñi amuñu ko woon ni mu ko daane rek la daane yeneen buur yëpp léegi mu mu mu mu mu gagné ko euh, mille huit cent cinquante mais c'est-à-dire ba dafa nit ndaxte fetal bi dafa lakk waalo yëpp la lakk jóge fa lakk ay ñomre lëkk li mu lakk kenn xamul dem na ci dëkk yëpp lakk fa mu ngi mel ne tey bu ñu jógoon Sénégal Dakar gi réduire ko mu nekk comme combien de temps il faut pour ñu reconstruire ko kon fetal bi dañu war xayma sax naka la defee na naka la reculer loo suñu économie nationale hmm. en tout cas bu ñu xoolee li mu fi yàq yëpp ku mel noonu nag toog fii ñu koy taxaw taxawal di ko di ko di ko euh, loolu ëpp naa def nañu leen jël dugal leen ci ay benn sociologue propose na ko am un musée de la colonisation boo xam ne ku boo xam histoire colonisation nga dugg dem foofu hmm. mais foofu bu fa ndate toogee li may wax dana jël sa revanche symbolique euh, sur euh, sur Faidherbe donc euh, débat bi nag ku nekk di nga si dugg wax ni lii la mais je crois que bu ñu demee ba passion yëpp toog li gën a am importance tey mooy Faidherbe war ko fa taxaw suñu paree après ñu continuer mais ndate ak ku n na ndate ak ku mel na ñun dañuy continuer di xeex pour ñu jox leen seen i gëdd parce que résistance nationale bi ñoom ñaar ñoo ko symboliser kii moo ubbi du point de vue spatial au nord ak du point de vue temporel 1855 le tubaab bi jëkk xeex ci Sénégal après buñ fa jógee pour pour conquérir ñu def ñu colonie buñ fa jógee à l'unité mooy kii résistance bi ñu jëkk mujj déporté euh, boobu xam nga 23 ans la 22 ans ou 23 ans la amoon xale la woon sax mais mm, au sud mooy Sénégal jeexee mm-hmm. kon ñaar ñu mel noonu. am na ñeneen tamit ay fantacanal de balde yoo xam ne ñu ngi dans le Fulaadu am nañ beaucoup d'héroïnes yoo xam ne génne wuñ leen mais ñun dañ ciy gestu pour fesal leen Sénégal bari na ay jigéenu jàmbaar yoo xam ne mérité na xale yi xam leen génération yi ñëw xam leen comme ni mu amee ay jàmbaar yu góor yu ñu war a xam waaw dog doguma la sax mais jigéen tey dañuy laaj taari euh, place am ci taarixu Sénégal góor ñi sax xëy na li muy néew néew am na ñu ci jot a fësal ci ci seen i euh, jaar-jaar ak seeni jëf mais jigéen ñi seen place ci taarix euh, dese naa fës loola lu ko waral mais parce que góor ñi ñooy bind histoire bi parce que suñu bind histoire dañ koy commencer par exemple bu ñuy commencer résistance du Sénégal avec Lat Dior Lat Joor doomu Ndate Yàlla la maaseel Sidiya mooy xaw mor ñoo xaw moromandoo maasuñ mais ñoo xaw moromandoo donc o oublie que affaire bi fële la commencé woon trente six ans avant donc parce que góor ñi ñoo bind histoire bi lañ ko noonu lañ ko euh, noonu lañ ko gisee ñu ñu jël leen delloo leen delloo leen gannaaw donc ñun noonu lañ ko mën gisee rek parce que li ñu am fiñ ñu nekk ci archive yi lañ fañ jëlee fa ñuy tibbee ñun la ñuy tibbee fenn archive bu Sénégal ngay wala archive bu IPAN nga gis fa loolu yëpp mais pourquoi ñoom bu ñuy bind lala la ñuy gën a bind di ko wax bàyyi te bàyyi mais c'est important ñu xam ne ñun euh, société boo gis rek ñaari tànk lay dox euh, te jigéenu ñu fi jàmbaar bare nañ hmm. boo ko seetee euh, traditionnaliste aussi dañ leen di wax mais joxuñu leen seen gër doo gis ci benn mbeddu Ndakaaru nga xam ne mooy capital bi nga xam ne mooy symboliser l'unité nationale ñu jël fa teg fa ay jigéen benn jigéen dafa naa Madeleine Ngom xaw a Madeleine benn tali mbedd laa moo si gis bu ndaw pokus pokus bu ndaw doo gis ñu jox leen loolu doo gis ñu jox leen ay place parce que góor ñi ñooy gouverner góor ñi ñooy jiite góor ñi ñooy def lépp jigéen ñi lu ñu leen di doye mooy loolu soit ñu leen di tàccul euh, ku ci tàcc ku la ku leen tàccul duñu duñu duñu la duñu la boole jigéen bu am faayda ñu faagaagal la donc loolu mooy fii mooy mooy problème bi donc léegi moom laata wax ma ne suñu symbole yëpp kii nañ leen suñu symbole yëpp dañu leen di jéem di leen yàq symbole jigéen sur le plan économique su le plan politique su le plan intellectuel soo ko seetee on est en train de Hmm. léegi nag su ko fa jigéen ñi comprendre jóg ñoom tam booloo xeex loolu mais ku nekk di wutal sa bopp loo am itam du ñu mujj fenn te du ñu àgg fenn. jërëjëf professeur Fatou Sow Sarr socio-anthropologue directrice euh, institut du genre et de la famille amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci euh, matinalu Rewmi FM ñu ngi lay sant bu baax.